waaw résultat yi moom mën nañu wax Morolan résultat yi li ko caractériser woon mooy résultat yi euh, daawuñu baax trop Morolan li ko loon mooy euh, zone bi déjà dafa nekk commune boo xam ne ba ñu xoolee résultat yi xool nañ ni communes yu xaw a nekk si ginnaaw yëpp mooy communes yoo xam ne dañoo jege ay communes yu mag Thiès ak Tivaouane Morolan dafa Morolan dafa jege Thiès boo jëlee Pambal dafa jege également Tivaouane ce qui fait am na benn am na enseignant yu bëri yoo xam ne dañuy ñu fi dañuy jóge si communes yooyu di liggéey si di delluwaat te xam nga boo waree liggéey si delluwaat yenn saa yi doo mën a yokk sa temps d' loolu day xaw gàllankoor parce que yenn saa yi différence mooy li ñuy wax quantum mooy temps bi xale yi di def si classe bi te ki xam ne dafay war a ñibbi Thiès yenn saa yi day yàqamte ñibbi yenn saa yi bu ñëwee mën na xaw a tardé tuuti lool nekk na loo xam ne vraiment day gàllankoor il faut ñu trouver solution. waaw xam nga plan doo ma mënoo ko c'est vrai am na ñu am seen moto nag wax dëgg yàlla mais kalaan doo mënoo ko maîtriser oto bi mën na paan donc li gën mooy enseignant dëkk fi mu war a fi mu fi mu fi muy liggéeyee mais du obligation obligation bi ñu mën a wax rek mooy enseignant même bu dëkkee fu ko neex obligation la obligation mooy dafa war a xëy fi heure di wàcc heure loolu moom obligation la loolu vraiment lool la ñuy maîtriser te dinañ si liggéey pour que loolu di am incha allah loolu daal laa mën a wax ci euh, conséquences yi mais jéego yi mais mën nañu wax ne malgré cela jéego yu bëri def nañ ko commune bi avancé na avancement avancé bu baax par rapport ak daaw parce que daaw ñu ngi woon ci 31 pour cent fanweer ak benn fanweer ak benn ci téeméer boo jël ren ji ñu ngi ci euh, defe na ñu ngi ci defe naa 55 pour cent juróom fukk ak juróom ci téeméer boo jël donc def nañu benn bond de ñaar fukk ak ñaari point de 24 points donc loolu waaw ñaar fukk ak ñeent donc bon la boo xam ne war nañu ko saluer loolu nag liggéey maire bi si la liggéey partenaire yi si la liggéey communauté bi si la liggéey enseignant yi également maître CM2 yenn saa yi duñu grève yenn saa yi dañuy def ay heures de renforcement loolu également il faut ñu saluer ko donc malgré difficulté yi également ñoom joué nañu si rôle bu baax si bon yooyu mais nag bon yooyu war nañ ko améliorer pour que vraiment ñu atteindre taux de 60 pour cent a Euh, defar yëf yi ba mu gën a baax loolu daal la ñuy ñaan. bon département ñu ngi si 65 pour cent 65 pour cent également taux de réussite CFA waaw ñun ñoo classé wu deuxième derrière Thiès Ville également à ce niveau là euh, mën a dem ba dépassé ko au moins waaw comme dem nañu 65 pour cent dellu gannaaw moom ñaanu ñaanuñu ko yàlla. avancé daal la ñuy ñaan yàlla je pense que dinañ wax ñëpp enseignants yeeg communauté yeeg partenaires ñëpp jàpp si pour que résultat yi mën a. mais ñun dañoo seetlu ni maanaam commune bi maanaam ci wàllu commune bi ñu ngi def ay efforts yu rëy ñu ngi def ay liggéey bon du tàggat suñu boobu sax mais ñu ngi koy def loolu leer na parce que ñun bu ñu ñëwee fii dañu fekkoon ay mbaar xale di jàng ci mbaar ñu fexe ba mbaar amatul biir Morlan donc xale yi fu mu nekk nii ñu xale yi Morlan yëpp ñu ngi jàngee ci école en en dur loolu suñ ko defee tamit ñu gis ni résultat yi day wàcc comme daaw daaw par exemple boo xoolee. ci téeméeri xale fanweer ak benn rek ñu amoon certificat am na école yoo xam ni presque zéro lañu ñu am CFCFE maanaam certificat donc loolu lañu loolu moo tax je pense que ñu alerter euh, maanaam inspection bu Tivaouane bi ñu yore affaire jàng bi bu ñu leen waxee loolu ñoom ñu xool ni effectivement commune Morlan commune Tia euh, Pambal ak commune Noto ñooy maanaam ñoo gën a bon résultat ci biir département bi yëpp te ñoom ñoo jege ci la ñu donc sos maanaam benn district au niveau de l'IEF jël benn inspecteur ñëw di topp maanaam liggéey boobu moom vraiment mu ngi def liggéey parce que mu ngi ñëw fii mu ngi def ay réunion ak directeurs yi te mais seet moo tax ma ne ko léegi at bu jot dañuy dañuy dañuy xayma dañuy xayma at bi ñu seet résultat yi ndax baax na wala baaxul ñu def si ay tërëlin dinañu wax ni at bii di ñëw bu ñu sañoon école yi yëpp yegg ci résultat bi donc di naa loolu moo waral réunion bi en tout cas seetu nañu ne ci biir waxtaan bi maanaam résultat yi bonee li ko waral surtout mooy enseignant yi lii loolu je pense que c'est ça fait partie parce que enseignants yi ñoom ñoo war a xale yi ñoom ñoo war a jàngal xale yi mais enseignant bu tardé enseignant bu absenté enseignant bu xam ni je pense que du baax te ñu ngi aussi woo foofu directeurs yi pour que ñu téye aussi maanaam mu am rigueur daal ci saytu bi waaw so loolu boo amee je pense que résultat yi dina gën a baax loolu je pense que loolu mooy mooy loo xam ne bëgg nañ ko def donc biir moom la waaw ñun ñun ñun lu ñu nar parce que comme dañuy dem maanaam voté budget 2017 dañoo bëgg a soumettre maanaam askan bi lu ñu naam ma def fii ak 2019 ci wàllu jàng ci wàllu paj mi ci wàllu ci wàllu yëpp mais ci wàllu jàng bi seet nañu ne maanaam presque écoles yi par exemple boo xoolee école yi am na école yoo xam ne amuñu ndox loolu suñu wàll pour ñun école yi yëpp dañu war a am ndox am na école yoo xam ni amuñu miiru école voilà maanaam amul sécurité yooyu wàllu commune bi lu commune maanaam dafa ko ne liggéeyam def ndox def mur maanaam école daal maanaam xale yi nekk ci cadre bu baax pour maanaam jàng bi moo tax ñuy def ay tërëlin pour que vraiment xale yi maanaam no seulement classe yi doy na mais ñu tabax ay murs yi def ndox mais aussi euh, maanaam tekkali ko maanaam kii bi maanaam lycée bi lycée Morna bu ñuy wax lycée Morna CM baa ngi ci biir dañu war donc euh, maanaam c maanaam xaajale lycée bi ak CM bi maanaam parce que boo xoolee proviseur bi mu ngi yor junniy élèves ak lu topp loolu dafa bari je pense que loolu suñ ko defee suñ ko defee am nañu yaakaar ni résultat yi dina gën a baax maanaam commune bi ku nekk na def liggéeyam daal commune bi na def liggéeyam parents yi def liggéeyam professeurs yi def liggéeyam je pense ku nekk bu defee liggéeyam maanaam résultat yi dina tane te bu tanee am nañu yaakaar ni Morna xale yi Morna yi mën nañu jongante ay prisonniers militaires